résultat eh, Ousmane Sonko juste Ousmane Sonko lu mu tekki Sénégal Ousmane Sonko tekkiwul daw ci Sénégal. waaw bàyyi ko Ousmane Sonko la personne la pili gën ki gën a tekkee di daw ci Sénégal mooy Ousmane Sonko. yow Youssou Ndour ngay tëkkaleeg Ousmane Sonko. te yow Youssou Ndour ngay tëkkaleeg Ousmane Sonko. Youssou Ndour en en dehors en dehors Youssou Ndour Youssou Sonko. ma ni ah, jàpp naa ne daal jàpp naa suñu nee ci plateau bi. li ci li jiitu ci plateau bi mooy ñu wegante tuuti. ñoom ñaar ñëpp ku nekk wax nañ même Diop su fekkee ñoo bokk parti yi wax nañ déglu naa leen donc man aussi yam naa droit la parole. Mhm. jël comparé Youssou Ndour ak usmaan Sonko ñàkk a wekk sénégalais yi la. ñaxte wek sénégalais ci Ousmane Sonko ba may wax dagguma la may wax ñaxte wek sénégalais ci Ousmane Sonko ba may wax dagguma la soo bëggee ñu débattre noonu de soo bëggee ñu débattre noonu émission bi moo dul jeex émission bi moo dul yegg soo defee noonu ma def noonu émission bi du yegg je peux bien vous suivre dans non non non Abdoulaye su fekkee xam man maa ngi door a jël kàddu man dangaa respecté ñëpp mais su ma daggee dootul wax su ma daggee dootul wax la daal Youssou Ndour sax moo gën Ousmane soo ma daggee dootoo wax ça je vous le dis avec tout le respect que je dois aux internautes soo ma daggee dootoo wax continue alors ñàkk wekk sénégalais yi mooy Youssou Ndour la muy woote ak Sonko la muy woote du benn c'est que ñoom dañoo nekk ci ay caaxaan Youssou Ndour day woote un concert Youssou Ndour su woote woon ñu mën a wax Youssou Ndour mosul woote politique di centre aéré centre Dakar Arena mhm. ça c'est la première des choses alors ñun li ñu xewle mooy lan dañoo jël nguur yàlla dénk ko Sénégal dënk ko Bassirou Diomaye fay ginnaaw ba Ousmane Sonko waxee ne votel leen Diomaye ñu votel Diomaye à 54 pour cent de l' bañ faloo ñëpp xam nañu fii parti au pouvoir moo doon décaissé pour la campagne campagne bu mënti am élection bu mënti am muy muy Macky Sall muy Ablaye Wade muy ñeneen ñu ko fi jiitu tey jii nga gis un parti au pouvoir ñëw ne ma man ba may nekk opposition dama doon woote ay levée de fonds levée de fonds yi def nañ ko fii dañoo xëy levée de fonds avec trois cent millions ministre dafa tiit commencé indi kii di ñu di ñu di ñu di ñu di ñu di ñu dànkaafu di ñu di ñu menacé naan ay ay financement occulte dugg na fii génn fii bii ñu wane la c'est quelque chose de clair wax ma fii en Afrique waxuma la artiste fii bëri na Youssou dem na Dakar Bercy wax ma benn politicien bu mos woote un meeting entrée payant. ñuy fay entrée payant mosul am man mosuma koo gis mosuma koo dégg fenn ci Afrique. su ma mën mënee xaabaaba sax dinaa dans le monde mosuma koo dégg mosuma koo gis fenn waxuma la amul mosuma koo gis alors lan lay wone tey jii soo nee un parti politique nekk pouvoir waroo mën a paase wu jël xaalisu gafar réew mi caisse noire ak fonds occulte ak nu mu ko mënti tuddee nga ne da ngay financer activité politique tey jii nii le PASTEF à toujours comme fonctionné comme ça c' est les militants qui cotisent c' est les militants qui cotisent c' est à cotiser alors bañ ñëwee ci meeting bi Ousmane Sonko wax na leen ko fii ku mën na def am ngeen les moyens yéen war ngeen ko mën a def sax yéen ñi nga xam ne barki démb barkaati démb yéen a yoroon pouvoir pendant douze ans vous avez les moyens vous devez avoir les moyens ah, ngeen war a mën moote mitin bu mel noonu su ngeen ko wootee Sénégalais yi dina dinañ fii nattukaay bi Sénégal la nattukaay bi c'est les militants et les militantes nattukaay c'est les internautes yi nga xam ne dañuy déglu nattukaay mooy ñi nga xam ne ay sympathisants toog ci biir kër yi ñooñu ñoo fas yéene natt exactement est-ce que la ñu def mën na nekk wala mënul nekk mu am ay innovation de taille tey jii nii xoolal meeting su doon am ci ci yenn yenn quartier yi ñi nga xam ne dañoo nekk de mobilité réduite dañuy am difficulté accéder tey dañoo créer espace boo xam ne les les personnes de mobilité réduite dañoo mën a accéder di profité ci occasion di nuyuwaale ku mel ni un patriote Samba Ndiaye nekk jëppal derkle di abattre un travail remarquable. mais par rapport li mu wax Arena. Euh, Dakar Arena tu sais Macky Sall génnewul ci poosam après yéen ngeen ci poosam. Macky Sall xaalisu état la te ñoom ñoo fi yàgg di wax naan état c'est une euh, continuité euh, infrastructure yooyu daanoo def ko kaas avant infrastructure li ñu si yëpp ëpp li ñu siy kaas mm. mooy lu coût bi nga xam ne nee nañ dañ koo def ci infrastructure yi souvent ñoom dañoo yombal wax ñu ne infrastructure bi temps lay jar alors que souvent dañu leen di indil ay ay ay ay ay ay éléments yu wane ne c'est différent de ce que vous avez dit j'ai donné souvent l'exemple du TR fii lañ fi génn wax fi 536 milliards d'accord le président Sonko génn fii neneen ëpp na loolu le ministre Abdou Ndéné Sall génn na confirmer loolu donc ñun amuñ problème ay infrastructure mais vous reconnaissez que euh, infrastructure Macky Sall mënoo wax ne Macky Sall def wala yéen da ngeen di taxaw naan suñu xaalis la non duñu wax ne Macky Sall defu fi dara hmm. Macky Sall defu fi dara loolu duñ ko wax def na fi mais est-ce que coup bi mu ko defee ëpp na loolu wala ëpp lool d'accord est-ce que defuñ ko loo xam ne tey jii waroon na am askan wi loo xam ne waroon nañu ko mën a jëlee ci coup ëpp boobu noonu. delloo ko ci askan wi. d'accord loolu mooy suñu inquiétude souvent par rapport ak ñoom seen i réalisation. d'accord d'accord alors euh, Abdoulaye euh, quand même xanaa di nga reconnaître le fait que musul am ab homme politique. daal di woote daal ni da ngeen di fay pour dugg. man xam nga lan laa doon rege te nit ñu bari ñoo ñu nga daal di ñu di dajale plus de 500 millions xam lan laa ko doon rege xam nga ko doon rege. démb bi Diomaye jëlee jëm Bakel Kidira Ousmane Sonko jël oto dem Matam ñu dem seeti ji sénégalais yi nekk ci jafe-jafe yi au moment que sénégalais ñu ngi souffrance ci biir ndox ci barrage boo xam ne dañ ko ubbi parce que bu buñ ko ubbi wulee lii am moo gën a dangereux. parce que mais ki nga xamante ni moom euh, jël ay initiative pour jàppale askan wi xooli leen seet saytu leen ci li ñu nekk. quand même au moment boobu Ousmane Sonko démb xanaa gisoo mais il dama ne xanaa xanaa xam nga tax nga xam ne sénégalais yi ñoruñu ko gisoo vaar yi ne ci TikTok bi dafa dem foofu di lim ay dëkk yoo xam ne nee na amul inondation ndox mi dugg fa booy jël waa dëkk yooyu ñoo jël ay vidéo jël fi Ousmane Sonko di waxee inséré ko ci ça veut dire ko Ousmane Sonko askanu Sénégal ñoruñu ko yii muy def populisme politique ak tappaleeki caaxaan moo ko ñor maanaam man dama gis sénégalais boo xam ne li tax nga xam ne Ousmane Sonko Sénégal ñoruñu ko noonu la doon opposé woo Ousmane Sonko bu dul woon Moussa Fall ak njàmbaar gum jàmbaar balaa ñoo egsi au pouvoir dañ fekk Ousmane Sonko tàlli ne woon ci réew mi yëpp ku daan taal BRT taal TER taal Auchan taal AV théâtre université yàqale na ci réew mi su fekkoon ne Ousmane Sonko dañ ko bàyyi woon ga fi mu doon def démb sax du ko fekk. mais lii lii mu def démb mu leen di def yéen opposition. la yow daf ne. wala da jot googu li ñu nekk mooy sénégalais yi am jafe-jafe ñun ca ne. moom moo tal yi muy def nii Bougane Gueye Dany bi mu jógee leen di gis na ñun bi ñu demee département Matam bi ñuy falu en li nekkoon priorité département de Matam ci Daanumaay bi mooy dëkk yi amuñu woon courant on a électrifié tous les villages officiels de Daanumaay les 26 villages yóbbu fa ay pan ay ay ay ay fa ay lampes solaires comme ñu ne ci kaw tali bi. ñu ne woon amuñu lycée yu ñu jàngee defal nañ leen ay lycée defal leen collège da jàng ba am bac doo ko génn ñu ne woon bu ñuy tiire xaalis amuñu woon fu ñu koy jëlee ñu dem yóbbu leen ay poste ci seen biir ñun seen i jafe-jafe lañ lañ dem saafara on a électrifié muusu glace téeméer la fa daan jar bu dee weer koor téeméer bu dee noor muy jar juróom fukk fexe nañ ba daanu maay boobu ñoom seen axe 1 li ñu doon seen doléance bu ñu fa egsi en 2012 mooy ñu électrifié ko on a électrifié tous les villages de Daanu Maay dafa leen ay lampadaires dafa leen ay collèges def fa poste ba tabax estatu Ndiofane Sorokoum Daanu Maay ni nga gis ne noonu pont Orofondé bi am ndox ñoom seen commodité yëpp dañ koy soxla ci biir dëkk bi duñ génn xam lan moo am dex gi moo débordé am ay kër yu mu jël léegi da ngay dem du dëkk yëpp la jël am na ñu am jafe-jafe nga dem seeti leen masawu leen ci jafe-jafe yi nekk ñun loolu la tal d'accord tey contexte bi Sénégal nekk mooy lépp lu ñu am tey jii bu Ousmane Sonko noonu damay laaj téléthon pour dem fekk ji sinistré yi waa Pastef laaj leen ngeen dajale yéen ay patriote ngeen ngeen jël li ngeen dajale ngeen jël yóbbu ko jàppale ko yi mais Ousmane Sonko lañ ko njëkkoon dajaleel yëpp da koo maasé wu jee amul lenn lu mu ci jël sax contrat di sax d' accord alors euh, Pape <laughs> par rapport ak li nga xamante ni mi ngi koy mi koy àddu ci li nga xamante ni euh, moo xew démb Ousmane Sonko